yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo xam ne boo fa cliquer incha allah da nga mën a ab asalaamaaleykum mbokk yi seetaan Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu di amaan mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne mooy jotaayu actualité bi ñuy amal ay gu jot di ci ànd ak oustaz Alioune Sall di waxtaan ak moom xew-xew yi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci ay bis gi moo xam ci politique bi la wala ci daara ji la wala ci diina ji la waaye lu mu ci mën di doon dinañ ñëw laaj ko ci xalaatam muy delluwaay boo xamante ne ni delluwaayu daara ji la ak donga daara yi oustaz ñoo ngi lay nuyu waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Haji Mbacke maa ngi lay fay nuyoo jërëjëf di nuyo ñi nga xam ne ñu seetaan ci biir mi ak ci bitim réew eh, di am lool ci mbokk yi nga xam ne ñi nga ci bitim réew waaye di jokkoo ak ñun mm-hmm. di rafetlu ni ngay omate jataay beeg laaj yi nga xam ne ñu yaa ngi koy ëndeeg ni nga koy laajee mm-hmm. Euh, moom daal mu war a nekk sunu minbar nekk sunu actualité waaye nekk xutba juma ci mboole mooy seetaan yi jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ni ko oustaz waxee noonu rek lañ ci jéema a góorgóorloo saa su nekk tey nag ñu war a indiwaat ay actualité waaye doore ko nag xew-xewi jamono xew-xew yoo xam ne du ko tax a neex lool waaye moog dund gi moo ànd xam naa waxoon naa oustaz jamono jëlee ne ko waaw fan yi moom dëkk bi tàng na di eh, faatu gi bari na lool waaye ba léegi oustaz loolu déeragut ñoo ngi ñàkk xalifa Medina Baye di Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass nooy jàngate actualité yooyu waaw wax nga dëgg de parce que daal list bi daal yàlla na fi tëj hmm. liste bi yàlla na tëjee fi ndax métti na jege na te itam muy jël ay ay marque lañu xalifa bi yàlla na ko yàlla yërëm amiin yërëm mboolem ñi nga xam ne jiitu nañ ko ak ñu nga xam ne des nañ ginnaawam te bokk ci loolu ngay junj mm-hmm. euh, seeti nañ ko jamono ñëw mu wan ñu goyof lool mm-hmm. wan ñu bëgg xam-xam lool mm-hmm. wan ñu bëgg alxuraan lool waaye wan ñu bëgg famille lool waaye wan ñu tam nag ak ubbeeku ubbeeku ci àdduna si di topp actualité yëpp waaw kooku daal la ñu ñàkk tabaarakallaahu ci Medina Baye yàlla na yàlla woyofal suuf ci kawam amiin yaa rabbal aalamiin na dajeek mag ña nga xam ne ñoo ko meññoon formé ko formation bi mu yor yàlla mën na ko yàlla na ko def amiin yaa rabbal jërëjëf Haji Mbacke jërëjëf oustaz ñu masawu la ko masawu ko umma islamique bi yépp waaye naka noonu itam ci wàllu politique gi ñu ngi lay wax ministre Moustapha Sourang di la wax euh, Mansour Kama waaye itam ci wàllu secteur boo jël rek ñoom mën ngaa wax fi mu ne ci dëj lañ nekk oustaz loolu gannaaw njàngatum dëj bi njaale yi lan lañ ci mën a jànge liñ ci a jàng bëri na loolu sëñ Mbacke ndax yàlla bu jëlee nit nit ñi dañu tàmbali di door di jàng nit kooku li ñu ci war a jàng mooy bu jëlee nit rawatina nit ñii mu jël jamono ji tudd nga fi léegi ministre mm-hmm. tudd nga fi léegi euh, homme d'affaires mm-hmm. euh, waa xelkom baas mm-hmm. góor a ngom loolu yàlla di jël ñooñu mu jël liñ ci mën a jànge mooy kon kat ndekete waaj jot na ak fagaru te itam bu ñu waxee nit seedeel ko seede yooyu yëngu ne lii dëgg la jël programme kooku noonu mboolam ñu fi génn àdduna ñëpp soo dégloo seede yi danga gis ni ay tànneef lañu waaw yàlla jékki-jékki rek tàmbali di jël tànneef di jël tànneef yi ci mille 2020 bi loolu kay ku ci nekk ñun war ngaa fagaru bu baax a baax waaj bu baax a baax defar bu baax a baax mm-hmm. fay say bor te jubóog say bokk dëgg la jërëjëf macha allah am na solo oustaz yal yàlla yërëm leen ñoom ñëpp te jéggal leen ñu dellu si nag lenn ci actualité bi euh, waaye nag ñëwaat ci wàllu presse ak communication mhm. journal bi nga xamante ne mooy les échos mhm. ci ay bis gi dafa xëy rek bind ne Serigne Moustapha Sy mi nga xam ne moo jiite Moustarchidine wala Moustarchidaat mhm. euh, tawat ji nga xam ne mooy corona bi daf koo alawtiku ñu jéggal ñu waaye it ñu daal di koy faja nag fajum dem rek daal di dal ci seen kaw ba fallaxe fa lu baree baree baree bari loolu noo koy jàngate ñaari ñaari côté yëpp cam ci solo la côté bu njëkk bi mooy ci sunum réew média day am léeg-léeg lu muy dugg mm-hmm. loolu benn baat léeg-léeg mm-hmm. mooy hérité nit ñi benn baat dëgg la xam nga suñu réew duñu wax sëriñ bi day nelaw waaw mm-hmm. duñu wax ngéntal sëriñ bi déedéet duñu wax sëriñ bi yeewoogut am déet déedéet lu ci ne daa am baat buñ koy waxee. Mhm. sëñ bi day dallu wala sëñ bi daa fatu. ah wala sëñ bi daa amu cat. d'accord kon su fekkee da ngaa yëg sëriñ bu am tawat. Mhm. boo ne woon sëñ bi dafa tawat kenn du la wax dara. Mhm. boo ne woon sëñ kenn du la waaye comme baat bi ñun ñëpp lañ koo ragal te di ko daw. boo ne sëñ bi daf koo def. ci sunum réew. ci sunu aada dañ la koy bañal. xam nga ne sëñ bi dañ nelaw waañu parce que sëñ bi dañ nelaw loolu waañu dara di kon affaire bi day delluwaat ci aada suñu aada moo am ay nit ñu ñum wala boog ñoo xam ne liñ liggéey ci diine ji wala wàccuwaay bi ñu leen jox aada da leen dañoo wutal baat yu ñuy waxeek ñoom waaw ah, très bien daf ñu wutal baat yu ñuy waxee ñoom hmm. nga xam ne baat yu ñoom ñoo ko moom hmm. yeneen baat yi ay intouchable lay doon ci ñoom est-ce que hmm. boo noonu fi nekk ne sëñ bi day jooy waaw euh, ah. xam nga mu ngi génnee rong waaw waaye duñu wax sëñ bi day jooy waaw li muy def moom jooy la tudd ci olof mais jooy la ko waxee noonu dañuy wax day day tuur ay leer <laughs> rek donc terme boobu mooy mooy érti nit ñi léeg-léeg mhm. muy wàllu kon presse bi mhm. wallu mbooloo mi itam mhm. euh, su lu mel nii xewee balaa ñuy jóg fajal seen bopp demoon ci yoon mënoon na am wala waxtaan ak kilifa yi ba waxtaan a nit ñi ne ah, nii kat bëgg bëgguñ koy waxee nii di leen waxee nii. dëgg la donc ñoom tam kàddu gu la ñuy jëmee ci ñoom. Hmm. wax na daal ñaari ñaari boor yi bu ci nekk daal. Hmm. am na foo xam ne fii boo fa yemee rek. Hmm. leen li mën naa ñàkk am mën naa ñàkk am. dëgg la waaw xam naa ci wàllu information ak actu ak ci wàllu tas xibaar oustaz. lekk daa mel ne dayoo yi day wuute rek. ndax léeg-léeg ñu joxe xibaar boo xam ne damaa yaakaar ne dara da ciy laale mooy tax nit war a am fitu wax ko mhm. waaye buñ ko toppee ba dara laalewu ci te du mujj fenn mhm. loolu loo jàpp ne mooy ne ci ginnaawam ba nit xëy rek mm, bind mbind mu réyee noonu ci ku ah. nit ñu fonke noonu ci ab la am na lu xew ci information yi léegi di mhm. loo xam ne man fàtte naa baat bi tudd est-ce ay vie wala yooyu waaye am na nuñ koy waxee bu yow <laughs> noo xam ne dañuy wax ne sañ nga koo wax senn ci mbedd mi mbedd mi seet ah bon waaw même bu ci dara amut même bu ci dara amut ñuy gëstu nag bu mu yàgg léeg-léeg sax duñ gëstu waaw bu njëkk bi ñu laan jàngale journalisme mhm. dañ ciy boole professionnalisme mhm. fexe ba nga am déontologie mhm. waaye fexe ba sëñ Mbàkke boo ñëwee bay bëgg a wax ab xibaar nga seet xibaar bi ban niveau la toll ak ban dimension su ko defee ndax xibaar bi yitteel na ñëpp wala boog yitteelul ñëpp ndax wax ko jot na ndax jotagut waaw nan laa koy waxee waaw yooyu yëpp daa mat a xam yooyu yëpp daa mat a xam dañ ko daan jàngale bu njëkk ci ci wàllu journalisme dañ ko daan jàngale donc loolu ci journaliste yi daf leen di la léeg-léeg mhm. jékki-jékki indi baat boo xam ne du noonu mhm. jamono yu Senghor am na fi ko doon def revue de press waaw baat ba mu wax tax na dañ ko wàcce mhm. am na jamono ji ki daan def xibaar yi. Mhm. dafa ñëw ba mu yàgg mu ne ñu ñëw nag ci xibaar yu sérieux yi. Mhm. ah bon waaw. maanaam xibaar bi tim réew lay wax. waaw nga xam ne yii moom sérieux wul <laughs> wax na lu garaaw de. seetlu ko rek wax ba mu yàgg mu ne bon ñu ñëw nag léegi ci xibaar yu sérieux yi. dañ ko wàcce. ah oui kooku moom moo wàccee boppam sax daa war a waaw te soo seetloo fi ne loolu moo ñu dal ci gàmm yeeg màggal yi. Mhm. xam nga ñu wax. cérémonie officielle. wala lu fi officiel. waaw ah, xam naa bee comme li officiel muy état mooy ñëw toog. ah waaw moo tax ñu tudde ko waa officiel ñooy ñëw. en tout cas ay terme laa ki baat yoo xam ne jar na ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci métier journalisme. ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel. effectivement lu dëgg. Mm-hmm. Euh, maa ngi lay wax léegi génn góor gu lay nuyu ca. Mm-hmm. Thiès waaw. waaye fim ne nee na. Mm-hmm. génnoo sisti la ma jaaroo isik demoo Canada. mu ne te teewul. musunoo dégg nga génne question boo xam ne amulul njëriñ penc bi hmm. ba ci teg mooy musuñoo dégg nga génne question boo xam ne amul amuli teggin hmm. loolu daar ji da ko am daara ji da ko am hmm. kon nag léegi loolu formation la rek ba nit ki xam réew mi mu nekk maanaam sëñ Mbàkke ñi ko dëkke ñan lañ réew mi mooy mën réew ñi ko dëkke ñan lañ boo ko sóoraalee ci say xibaar ak say liggéey rek da nga mën a jàll waaye ku ko sóoraalewul nag jàpp ne réew mi bon réew rek la nangam ak ki nangam dana am yoo xam ne da ngay def ne dara la ndekkat yoo mën naa nekkum dëgg sërëx yàq li ngay def dëgg la am na solo lool jërëjëf oustaz jërëjëf ñi ñuy seetaan xam naa oto mbalit bee jël si mbalit te moom coowam moom day coow rek eh, yooyu itam ci ñu war a waxtaane la bokk mhm. ndax eh, gannaaw bu ko defee benn yoon bu foor waa koñ bi dégg ko di ko baamoo ko baamuwaat rek waaw oustaz suñ suñu xeetu comportement yooyu suñ doxalin loolu moom waaw laaj nga laaj bu am solo nag fii li nga wax nii waaw xam na ba entre parenthèse la ñuy def. waaw moom kay moo ci dugal boppam. gis nga réewum Allemagne. Mm. lii kenn ñu mu ko fa. pii pii bii. kenn ñu mu ko fa. Mm-hmm. ndax ñii génne seen mbalit. Mm. war nañoo xam ban heure la fi oto bi jaar. dëgg la ñu génne seen mbalit. Mm-hmm. oto ba ba xam ne ban heure la jaar. Mm-hmm. bu faussé wul ñii faussé wuñu jaru correction yi. dëgg la de ndax fi mu ne ku tawatoon ba naa ni garab. ñu tàpp tàpp la ba ngay nelaw mu toll sa fenêtre di pan pan bi nii ba muyul nga yeew jeex na damaa nekk Espagne ci xaw ma Allemagne ci génn kër mm. euh, Mamadou Ñing mm-hmm. ma yendu fa mm. mu am kuy daaj ab pont ci miiram mm-hmm. xaw ma day def ab ab day wékk yi day wékk yi ma la déet mm-hmm. porte-monnaie bi muy daaj nii waa ji ne ma gis nga kii léegi tey police jël ko hmm? bu fekkee dafa ñaanul autorisation bi ñu laata añ police na fa jeef mu ne mu waaji lay jël si lu tax mooy daaj ci miir bi di déranger nit ñi te yu ñaanul autorisation hmm. man na ko lii indi leen ko suñu réew wallaay ndax yàlla ñu mën a enregistré te duñu am benn bruit <laughs> jërëjëf <laughs> moins am na solo oustaz jërëjëf xam naa fi ñu daaneele léegi laay ñëw ñu jeexale fa ci hmm. wàllu xibaar ak wàllu wi ñu koy binde hmm. daa mel ne oustaz nit ki bu jàngee école ba noppi itam war nañ koo jàngalaat damaa xamul lool sax dañ koy jàngale wala jaar-jaar moo koy def ci nit ndax tey bu fekkoonte ne kilifa daa tawat tawat ju tol noonu mhm. wala mu am lu ko gaar mhm. bind ko buñ koy bind di ko yëgle mhm. ndax waruñoo xool impact bi nga xam ne moom lay juralaat askan wi buñ ko déggee day wuute lool ak buñ bu doon ne tawat la ju dal jenn waaye rek niñ ko war a bindee loolu itam tiréew ma ci kaw presse bi waaye ndax duñ ci bàyyi xel bu baax bakke hmm. jàng nga laami saasa waaw bu baax laami saasa ab baat la bu nekk ci alxuraan hmm. Hmm. laami saasa laami saasa su ma la ko nu firi mooy intouchable su ma la ko doon firi. lu tax ma ne la message intouchable. mooy xibaar yu suñu penc mii. kiy wax ci sëriñ. wax cib sëriñ. su bàyyi woon su bàyyee xel suñu penc ak suñuy aada. dafa am ni waxee ak moom. dëgg la buy jëflanteeg moom day am nu mu jëflanteeg moom. dëgg la sëñ Mbacke. waaw wax naa la sànq ne. seriñ bi day sëriñ bi day jooy. bu fekkee ay rongañ day génn ku ne xam ne day jooy. dëgg la waaye suñu réew mi kenn du fax loolu. dëgg danoo mas di añ benn barab nuy waxtaan ba mu yàgg ñu tudd jigéen ju baax am ku ne jabari diw la te ki mu wax ab sëriñ la keroog añ ba daa yàqu allahu ndax daa am ku tibb ca ca maafi mañ doon añe ribas ko ko ne ko loolu kenn du ko wax waajo daa daanu maafi mu doon añe moom la jël ca la loxo yi tibb ca ne ko loolu tuur ko waaji yuuxu ko ne lii kenn du ko wax jabaru sëñ bi kenn ko wax. kon de sëriñ war naa góorgóorlu. <laughs> Mbacke moo tax sunu penc mi Mbacke. Hmm. dafa am nu mu tëddee. Hmm. moom laa la junj léegi la naan la dafa spécial. waaw loolu ku jàng métier journalisme. parce que boo jàppee ne liberté la nit la comme nit ñi damaa war a wax li naa ci sañ-sañ. du noonu du noonu dafa am sañ-sañ yoo xam ne nit ki da koy am mais muumu ko. Hmm. sëriñ Cheikh dafa taram fii mu ne. yàlla daf lay may ab fauteuil ñu fomp ko ba mu set mu la yaa moom nga ne waaw mu la bul ci toog nag am moom mais bu ci toog affaire am compliqué na sunu sëriñ si nun yàlla moo leen may yarfa law li seen amanu minkum wa li seen utul ilma darajaat darajaat léegi nag ñi jàng tubaab ci côté boobu léeg-léeg dafiy des tey suñu àndoon maa yi di seeti Cheikh seen Muntaxa bu ñu xasee yëglu rek noonu dañuy toog. waaw dootoo soññee doo. bu ñu hmm. noonu dañuy toog rek. ba ma ko defee kër sëñ Saliou radiyallahu ta'ala anhu hmm. daf ne ma bul dem te yëguma la nu ma def. toog toog fa bañ ñu suba la tabaski. bañ ñu suba la tabaski. waaye doo soñee doo yëg. di sama xel xalaatu ko. <laughs> ndeysaan jaar ci wetu buntu néeg ba pour mu séen ma sax sañu ma ko. man daal néeg sëñ Saaliwu si laa laa tuddoon yàlla na ko yàlla yërëm bu añ jotee ñu indil ñu añ bu reer jotee ñu indil leer indi café ñu naan hmm. wasalaam ba ñu ne suba la tabaski sëriñ bi doon ana ndongo loolu sàll <laughs> ñu door maa woo mu ñëw waaye fu ne bu ñu jàng tubaab nañ ma baal nag bu fekkoon ñoom la bu ñu agsee hmm. dañu njëkk a wax ndax yëg na ma hmm. yëglul ma dama am rendez dama am programme maa ngi bëgg a dem barab sàngam walaw annahum sabaru hatta taxruja ilayhim mhm. la kaana xayran lahum loolu nag sëñ Mbàkke diine jee ko moom mhm. daara jee ko moom mhm. sëriñ see ko moom na ko ko journaliste yi jox na ko ko professionnel yi jox na ko ko intellectuel yi jox ndax réew mi ku ci ne lay sa cër buñ la ko joxee rek yu mel ne mën naa ñàkkaam jërëjëf ci laaj ba am solo na solo jërëjëf oustaz jërëjëf ci njàngale mu am solo moomu ak yooyu nga indi yal na jàmm topp topp ci loolu di masawu baax a baax waa Les ak mboolem journal yi nga xamante ne ñoo ne ci réew mi xam ne liggéey bi ñuy def moo ànd ak dansé ndax kuy joxe ay xibaar te xibaar rek la mu tiitloo nit ñaare sax bu nit daan tàggee nit da koy waaj ni koy tàggee ndax am na noo koy tàggee lu njëkk a yenu dóor la ko mhm. rawatina nag ku fonk nit ba yéenewul dara dal ci kawam mhm. boo joxee xibaar ba bu dee dëgg ak bu du dëgg yëpp mere na la rawatina nag bu demee xool ko ba xam ne du dëgg oustaz beneen bi ñu ciy toftal mooy lu jëm ci wàllu euh, li ñuy wax grâce présidentielle mhm. maanaam léeg-léeg bu ñu dëgmalee lu mel ne tabaski njeexitalu at mi day am ñoo xam ne ci président sañ-sañ yi ñu ko may day jukki ñu bari baal leen nee nañ ma sax sañ na koo def sax ci jamono ju judul jooju xool ko ko neex mu baal la nga génn waaye dañoo seetlu daal polémique bu ci am daal xam naa daa mel ne am na ci ñoo xam ne askan wi ñoom baalaguñ leen. Mhm. yow nooy jàngate loolu. Euh, waaw xanaa léeg-léeg mu xew ci penc mhm. xam naa man am na ku ma woo sax ne ma dañ ma baal te damaa amee loon bor. Mhm. te bari ma amee loon waa ji ne ñëw ne naa ko fay te man tëdd naa naru naa tëdd ñaari at. lu ci diine wax. <laughs> ma ne ko diine nee dang comme da ko amee loon bor. ñu yóbbu ci yoon bu tëj la fa. def ñu génn la. li teg ko ci loxoom te bàyyi ko moom ak suñu borom. Mbakke président lañ may sañ-sañu baale. lañ ko may sañ-sañu baale. xëy na am na yooyu nag bu dee àqu nit la. léeg-léeg dana la baal mais àq ja du du wàcc. maanaam pen bi mooy wàcc tëdd la. mbokk tëdd na ci barab ba. président baal ko. Mhm. waaye kam séqaloon yëf yi daf ko woo ne ko man baaluma la. Mhm. loola dellowaat ko ci ca barab ba mhm. lu ko rek waaw léegi bu dellowaat ca barab ba mooy tey bu ko président baalaatoo nit mhm. bor bi dafi nekk rek mhm. su président yëkkati woon bor ba nag jox borom bor yéen ne ko baal naa la muy ñaari baal baal est que loolu moo waral ñu ñuy baal léeg-léeg gis ci ko xam ne ki kii àq yim ameel nit ñi àq yi jeexagut te moom baal nañ ko dëgg la dëgg léegi nag bu dee bor moom bor bi dalay topp da ngay bu fekkee da nga amel waa cinquante mille ñu tëj la ci kaso bi. Mhm. boo génnee da ngay wut cinquante mille fay ko. Mhm. xam naa li ci doy waakal oustaz mooy léeg-léeg ñi nga xamante ne nii ay ay kii lañ ay politiciens lañ wala baale gi day mel ne dafa am luñ ci réglé waale loolu nag gisinu doomu aadama bu sori mbir la di ko xoole ndax euh, am na ci ñoo xam ne ci wàllu faux billets lañ leen jàppee ak loolu ni mën a yàq ci économie ñu yëg ne ñi ngi ci biti léeg-léeg ko liberté provisoire léeg-léeg ñu tuddee ko ak baale loolu noo koy jàngate luwaay tubaab luwaay tubaab mbàkke <laughs> xam naa léegi te sax nga mokkal looy tubaab. <laughs> looy tubaab ah. waaw parce que looy tubaab mooy fekk nit mu baal ko. Mhm. nga ne ko lu tax mu mu ba nga baal ko mu indi aw layam teg ca mhm. looy na la koy wér. Mhm. loi sàngam nee na article sàngam aliyaana sàngam nee na nangam bu ko defee kee mën a jóg moom tam ne ko loi sàngam baalu ko léegi nag ñoom ñaar ñooñu <laughs> Mbàkke maa ngi yow Pape Doudou. ñoo dul xam ñun kon lan moo xew. waaye am na franc gala franc grand délit yoo xam ne. bu ko nit ki defee. bañ teg ko loxo. ak wéri di dong nga war a teew tax ñu ñu ne nañ ko baal. bari nañu koy layoo de. waaye léeg-léeg dañu dañu layoo wéri di googu te fi nekk sëñ Fallou noonu na. ndax am na ñu ne ca biir wéri di ñoo xam ne. waaw lañu lañ sàcc wala boo moytuwul am mburu. sëñ Fallou noon na. léegi jarut kenn di wax nit mbaata watoo. Mm-hmm. mu ne loolu dina xew yi. ñëpp a wéri ñëpp a wéradi dëgg la da nga naan ko mbaa yaa ngi tane rek ndax ñëpp a wéradi macha allah kon nag grâce grâce présidentielle mm. am na solo mm. ñoo ngi ci ñaanal président mm. waaye daal sélection beeg niñ koy defeek ñiñ sañ a baal ak ñañ war a baal ñoom seen yooyu léeg-léeg nu baale ñun xeet wi mm-hmm. ñu ne ah diw mi baal nañ ko mm-hmm. waaw dëgg la léeg-léeg ñu xool ñun xeet ne waaye diw lu baaluñ ko mm-hmm. loolu nag bu dee leer ci xeet wi rek xeet wi ne cell daal ci bàyyi xel bu du leer ci xeej na toujours ay question la ñu yor. am na solo la su la Ibrahima waxoon suñu borom rek. dëgg la arini kayfa tuhyil mawta xaala awalam tu'min mhm. xaala balaa lu mu ci teg. walakin liyatma'inna qalbi mu ne yàlla dama bëgg sama xel dal ci ni koy defee rek. Mhm. waaye gëm naa ne am na. Mhm. kon ñun tam ñuy baale ñuy joxe grâce ak ñuy génn ñëpp liyatma'inna xulubu naa rek. bu suñu xol dalee rek. ci normalement normal na rek. question yi daal di wàññeeku. macha allah jërëjëf sëñ am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf ñuy seetaan xam na actualité wu ay bis gi moom daa bari eh, daanaka sax na jeexut waaye waxtu wi buñ ko toppee day gën a gudd ci internet yi mhm. moo tax man nañ ko yemale foofu jeexale ko tabaski gi wax la ne la tabaski ren noo ko dunde ah, nu ma gëj a dunde tabaski laa dunde tabaski ren <laughs> eh, jóge fi dem Mbàkke mhm. dem ci njaboot ga waaye nag sëñ Mbàkke wax dëgg yàlla man daal moom mu demee Mbàkke sujjoon naa ñaari sujjoon. Mm-hmm. ndeysaan. ndax jàppoon naa du ma moom xar. Mm-hmm. ma far di maye ay xar. ndeysaan. waaw jàpp naa ne. lu tax nga jàppoon ne doo moom xar ah, parce que sama poche bi dafa woyof sëñ Mbàkke. Ah, en tant que conseil membre conseil économique social. environnemental euh, en tant que euh, euh, ma dolli ko ci. waaw donc kilifa diine ak soppe yu bari oustaz ngay tiit ci loolu. waaw parce que sëñ Mbàkke. <laughs> waxoon naa nit day ñëw ne la. Mm-hmm. amagu moom xar. boo ne ko yoru moom xar. dalay weddi mhm. xam nga ñun sëriñ si amagul barke lu nu lu mooy nit ñi nanguwuñ ne daañ banque hmm. loolu rek la kon tiitoon nga ci xar yi lool bu baax a baax da ngaa gëj a tabaski Sénégal xam naa lool ba tey <laughs> déedéet waaye daal gaa ñi defar nañ ko ci xar mi mhm. defar nañ ko ci wàllu googu mhm. euh, bëggumaa tudd tur waaye da xam nañ daal def def yi am na ci solo lool am na ci boo xam ne yow mi yaa ko indi ànd ak nit euh, ma ma sol bay maye ma sol bay maye. Mhm. donc yooyu wax dëgg yàlla dalal na sama xel ci ci ci tabaski mhm. ma dem na ci njaboot ga euh, wuuf leen waaye nag ba ma àggee sëñ Mbàkke ba ñu julli ji ba ñëw xëm naa fa. Mhm. ndax damaa ñëw gisuma baay Mbaye. ndeysaan te daan ko fi fekk mu toog. ndeysaan suñ julli jee ba ñëw defaral ko colam jubbanti ba mu jekk lakkal ko yu nooy jox ko. tey nag nu ñëw fekkunu ko fa. moom sama yaram dawoon na lool sëñ Mbàkke. Eh, am na ñu sax nañ waaw ñun teew tey dégguñu la mu ne ma leen maa ngi leen di jéggulu mm-hmm. ndax nekkuma fi woon. Mm-hmm. waaw kon tabaski nañ ba noppi. Mm-hmm. Ah, macha allah ñaan borom bi mu may nu fekkee déwén. amiin yaa rabbal eh, la sëñ Cheikh daan wax rek ñu am jàmm ngeen am jàmm. ba déwén ak jàmm incha allah. ñu am jàmm. ngeen am jàmm ngeen am jàmm. ba déwén ba déwén ak jàmm. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sant ngërëm ñeel na la Oustaz jërëjëf Pape Doudou jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di béggee di békki ni ngeen ñuy toppee seen ay commentaire seen ay encouragement ak yi nga xam ne yéen a ngi ko ci dolli yëpp ñoo ngi ciy bàyyi xel di bàyyi xel bu baax sponsor yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi xaar ñu dugal seen loxo ci liggéey bi ndax itam loolu dana gën a tax jal bi gën a maase eh, ñoo ngi leen ciy xaar bu baax a baax cant ngërëm ñeel leen bàyyi bis gii di ñëw incha yéen ñi nga xam leen nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo xam ne boo fa cliquer incha allah da nga mën a ab